loolu moo tax ma jël décision man ku ma xam-xam ne man administrateur civil la nekkoon ci liggéeyu commandement territorial gouverneur préfet yàlla def ma ñëw administration centrale comme directeur de cabinet ensuite secrétaire général mën naa politique yoon bay na moom politique parce que nekkatuma ci commandement territorial ma daal di

Je biñuna suis biñuna mën fa dellu lepp li nga ah, ko ci katan am touti ci xam-xam man du man dong ñu ñi ñu bëgg gox ñi volonté def développement man nak ñom ñu liggéey ci lolu moy sama 2017 ma décision dugg ci politique. Euh, dans le département de Bignona mais particulièrement dans la commune de Bignona bu may dugg nag damaa ñëw wax gaa ñu lu leer man damaa bëgg nekk maire commune Bignona am ñu may reesa nan ma yow dal do politicien politicien day neub fu mu jëm waaye ah man day awma lu muy neub. Dama bëgg liggéey rek Dama bëgg liggéey ku mëna mën ñëw jàppale ma na ñëw jàppale ma bu Yalla nangoo parce que Yalla moy dogal li am Yalla bind na ko ba paré. bu Yalla né do nekk maire Bignona Obé Sagna du mu san doon maire Bignona bu Yalla né di ko doon Obed eh, Sagna dina nekk maire bi ñu ne kenn mënu ci dara ma ne man loolu laa bëgg yàlla rek a xam yàllaa mën mais man dama kaa bëgg wutuma ci tur du wutum koppar du wutum leneen damaa bëgg rek servir liggéeyal bi ñu na parce que damaa bëgg tamit ñun suñu commune ak sama département mu mel ni yeneen yi am na département yoo xam ne boo leen xamoon yaa 15 ans en arrière mais da ngay jaaxle tey dañu développé jëm kanam ma lay may féliciter les fils de ce département. parce que dañu taxaw jàppale sen gox bu mu avancé waye ñun itam ñun nga xam dañu vivre une crise un conflit qui a duré plus de 35 ans presque quarante ans maintenant mais ñun vraiment dañu wara a impliqué wu jéem a jàppale suñu gox tamit lolu moy sama tank mu ni situation Bignona ma day ni ma jàppee mooy rafetul mën naa gën a rafet yow nag boo fa nekkee nekk fa au pouvoir ñu fal la maire da nga ne lépp baax opposition moom dañ naan chaque fois dara baaxul waaye ma du wax dara baaxul dama naan xëy na am na ñu liggéey tuuti waaye doyuma damaa bëgg nag ñu yokk mbir mi la bal di fas bi nag i faut mu gën a gaaw parce que léegi affaire yi foog muy gaaw yée ku yéexantu gaa yi raw la bi ñu naan mu kaa bëgg teg ci fas bu am doole bu gaaw bu xarañ ñu puus mu dem parce que am nañu matériel bi nga xam ne permettre nañu ñu liggéey gis nga yàlla bu la mayee ngay am naaj. c'est important boo nekkee sénégalais bu ñuy wax naaj léeg-léeg doo comprendre waaye am na dëkk yoo xam ne da ngay toog lu yàgg doo gis naaj wala naaj bi daal da nga koy séen am nañu naaj parce que naaj mooy mooy andi énergie bi ni affaire yi di sax dëkk boo xam ne am nga suuf am na feneen gaa yi ngi xëccoo di reyante ngir suuf mais fële moom ni ko xale di waxee yaay bañ suuf sàngoog te suuf si baax na naat na dëkk boo xam ne ndox am na ndox maanaam cours d'eau yi rivières yi rivières yi ak yooyu mais lumi taw taw ko fenen Sénégal ah man de nit bu fa bu fa xifé dafa may xaw jaaxal leppay sax euh, Casamance bu ñu né mango ñu né Casamance orange ñu né Casamance naka la nit di mën xifé fofu man dama né lolu question la mais le plus important moy il faut ñu am une réponse pertinente à cette question lolu moo tax ma impliqué politiquement pour que les reines de la commune de Bignona manam gel commune Bignona dirige ko en tant que maire. liggéeyal nit ñi parce que tey ngay dem foofu xool gis ay xale yi nga xam ne jàng nañu macha allah xarañ nañu su ma nee jàng moom mun na doon école ba université mun na doon métier am nañ lépp am nañ doole wér nañu léegi liggéey moo des bëgg nañu liggéey mais amuñu fu ñu liggéey ñu nag suñu rôle mooy lan mooy construire l'écosystème maanaam construire suñu environnement ba ñu mën a jox liggéey xale yi. parce que bu ñu naree xaar liggéey état rek mais mënul mënul mënul satisfaire ñëpp liggéey état mooy ban nga nekk infirmier wala infirmier wala sage-femme wala médecin maanaam la santé wala l'enseignement nga nekk jàngalekat instituteur wala professeur wala yooyu wala nga nekk militaire les corps armés mais mënuñu employer lépp il faut mu am ay petites et moyennes entreprises il faut mu am ay petites et moyennes industries il faut qu'on offre de l'emploi aux jeunes te comme nu mu koy waxee.

moom laa bëgg mooy ak ñi ma àndal ñu gën maire Bignona ni nga koy waxee en français plus on a de bras <laughs> plus on est heureux euh, bëgguma wéet ci mbir mi te man jàpp naa ne du man rek maa bëgg Bignona ah du man maa bëgg Bignona am naa ci bëri naa ci ay morom xëj na dañu gisul naka la ñuy war a mën a def rek pour ñu liggéey kon damay ñaan ñëpp ñi xam ne bëgg nañu Bignona ñëpp ñi nga xam ne am nañu seen xel bu ñu xeeb bu kenn xeeb xel bu mu am. ku ne am nga ci participation ñëpp ñi nga xam ne am nañu doole wala am nañu koom-koom tuuti maanaam moyen financier ñëpp laay ñaan léeg-léeg sax connaissance xamel c'est le capital le plus important xamel mën na laa permettre yow nga def dara pour sa gox ñëpp képp koo xam ne bi ñu na nga soxee koo nga nekk Sénégal wala nga nekk bitim réew képp koo xam ne yow bi ñu na ñor na la neex na la wala sax nga dem fa rek mu neex la léeg-léeg nga ñëw fa takk fa jabar mais yow naa nga ñun ñëpp ñoo bokk na ñoo bokk Casamance ñoo bokk Sénégal képp koo xam ne mën ngaa def dara rek ñëwal andil sa xeer andil sa brique ñun dañoo ñoo ngi tabax nga teg sa brique ñu continuer suñu tabax maa ngi ñaan ñëpp ñëw rejoindre ñu ci combat boobu.